asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Safo GPTV Sénégal amaan nañu mbégteel di kat fii di partager ak yéen information bi nga xamante ni moo fi am tey fii si diggante Tivaouane ak Ndiassane dëkk bu ñuy wax Njaxate mbokk yi benn accident bu métti métti boo xamante ni nemmeeku nañ ko fii tey diggante midi jàpp une mbokk yi li waral accident bi nag moom lañ leen bëgg a wax 4 x la benn 4 x boo xamante ni mu ngi jógee fa li nga xamante ni mooy Thiès. dàq doon ñëw fi nga xamante ni ah, xamuñu Tivaouane la doon ñëw xamuñu exact fan la doon dem waaye bi mu ñëwee ba fi nga xamante ni mooy njaxate ak chauffeur ko doon dawal nag bi ñu xoolee gis nañ ni emprunté moo doon dawal karkaat bi moom dong nag moo nekkoon ci oto bi waaye dañu gis ni dafa ñëw fi nga xamante ni mooy njaxate si benn côté si njaxate la nekkee mu daal di saaraani bi mu saaraanee nag oto bi këpp xamuñu nag lan moo tax mu saaraani xamuñu tamit lan moo waral mu saaraani mais bi mu oto bi këppoo vitre oto bi yëpp sax booy xool li si gën a ëpp toj na waaye oto bi li gën a ëpp si oto bi yàquwul waaye mbokk yi li gën a métti si choc bi mooy ki nga xamante ni moo doon dawal oto 4 x bi dafa mujj jaare ñàkk bakkanam ndax xam naa ni ni oto bi këppoo moo xaw a métti mbokk yi sàkkoo ñëw na police ñëw na def nañu seen liggéey macha allah comme niñ ko war a defee jël nañu li nga xamante ni mooy corps bi yóbbu ko mbokk yi mu doonoon information boo xamante ni moom lañ bëggoon a ak yéen loolu daal lañ fi jotoon a am te lépp loo xamante ni information la GPTV Sénégal bi la nañ ko toppal incha allah bi di wax nii bu tàyyee abone bés cloche de motification bi te ngay partager vidéo yi te nga kose suñu lien bi bu baax a baax di ko jàllale ndax loolu mooy mën a tax information yi jëm a jëm si kanam di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen topp GPTV Sénégal am nañu mbégte ak contentement si yéen bu baax a baax jaa ngeen jëf ba beneen yoon si beneen information incha